fukki at gannaaw bi ñu kurel kuréel gi nga xam ni moo ëmb ñu ñuy woowee sanarien yi soqee ko foofule ca université de Saint-Louis mu doon ab association bu jóg ngir taxawu yooyu la étudiant ñaari dëkk yi nga xam ne ñoo wër université bi benn bi sànnax pël la tudd benn bi sànnaar wolof ñun ñu dem puisque dañu nekkoon dëkk ak ñooñu ci condition yu rafet ñu dem finalement ba képp ku jóge université de Saint-Louis ñu lay wooye waa sànnaar suis 10 ans, je suis à Tchigana, je suis un jeune homme, je suis un jeune nous avons intelligence et créativité créer association bi nga xamné mo tuddu wasanar association bobu am 10 ans tay donc boy xol tay université gaston berger mu ngi ci 29 ans 30 ans association wasanar mu ngi ci 10 ans euh ñom nak ñi nga xamné ñoko jité ñu ci profiter vraiment pour remercier len avant il y avait ñom racine après il y avait ñom khalifa ababakar maintenant c'est sonko qui dirige Euh, ñoom xarañ nañ te ñoom ñoo tax ñun ñëpp ñu mën a daje ñu am xalaat bu toy euh, rafet na nga ni université Gaston Berger la bok mais gën na rafet aussi ñu am forme de solidarité. pour ñun ñi nga ne jaar nañ Sanaar université Saint-Louis euh, lu lu lu marqué suñu dund la parce que ma ngi fàttaliku ñun ñaari première promotion yi parce que man sanar de la bok ñun ñaari promotion yi dañoo fekkoon ben université bi nga xam ne ndaw yi fa doon jàngee a bëri Euh, mu nek nag li nga xam ne da ngay sentir tuuti don parce que da nga doon jóge sa gox nga ñëw ba ba ndar après jëmaat ba sànnaar euh, nga xaw fa bok euh, waaye nag mu fexe loolu dafa tax ba ñun ñu gën a bokk bokk ndey bokk parce que ñun ñoo fa nekkoon ñun kese donc mu fexe loolu dafa tax ba ñu am ay liens yu solide diggante étudiants yi ak tamit ñi nga xam ñoo fa nekkoon di liggéey ci université bi mooy ñi ñuy personnel administratif technique et service ak ñi ñu doon jàngale mbooloo moomu tey moo màgg parce que ay fanweeri waat après euh, ñu ñëw mbooloo bu mel noonu taxaw xool naka lay njëriñee université loolu lu rafet lu rafet la moo tax ma ci félicité bu baax euh, bureau waa Sànnaar bi nga xam ne xalifa Khalifa Ababacar Sonko moo ko jiite euh, ndax jéemoon nañ daje ah defoon nañ plusieurs tentatives yàlla def ci seen génération bi ñoom la ñu amee association bu nga xam ne am na tey ji organisation buy tax ba ñuy am yéene di defal suñu rakk yi nekk université daje bi ñu amal tey mu ñeel ab campagne de levée de fond ngir mën a tabax ab immeuble buy dimbali yooyu la étudiant ci seen dëkkuwaay ñu nemmeeku fa teewaayu ñenn ci ay responsable ñu mel ni docteur Abdourahmane Diouf wala sax Mame booy Diao ak ñeneen yu dajale ay profil ngir mën a toog waxtaan. campagne de levée de fond bi ñu ngi ko doore officiellement tey jii mais ba ñu tàmbalee di xalaat ne nag dañuy ñëw ci soirée bi ba tey.

loolu mën nañ ci def lu rëy donc c'est un principe de fundraising boo xam ne nekk ci wàllu mbooloo la moo lay wane ne que mbooloo mooy doole état ngi def li muy def ñu ngi leen di jaajëfal et tout bu baax mais dañoo xam ne tamit ñun tamit suñu toq boobu ñuy xeeb yenn saay buñ ko boolee noonu rek mën na nekk lu rëy. bu ñu boolewee rek lu ñu bëgg def dañ koy def parce que tey jii mot nañ presque 20 mille yi nga xam ne jàng jaar nañ fa. ñu xayma ni xaaj googu rek bu dee ku ne joxe woon na ñaari junni dinañ ko mun def donc mais c'est symbolique ñaari junni yi parce que damit bon wërsëg yi ànd bokkul c'est normal ke ñenn ñi moom ñu mun joxe ñaari junni mais ñu xam ni valeur boobu ak ku mun joxe million wala ñaari million ñoo yem. ñu ñaan képp kuy sénégalais wala nga jaar foofu lay ca sanaar nga ñëw indi sa ndimbal ak nu mu mën a toll. ngir mën a taxawu étudiants Saint-Louisiens yi ci jafe-jafe yi nga xamante ni ñu ngi koy jànkonteel. dafay tijji benn bunt boo xam ne xamul sax fan la ko affaire bi di jëmee man tey bi ma dugg see fii gis naa fi ñoo xam ne ça fait ay vingt ans vingt cinq ans gisuma leen ñu ngi am ay responsabilité ñu ngi liggéey ku nekk yaa ngi toog sa côté te Sénégal loolu ci li ko war a doxal la bokk ba que bëri ñu bëri ñu am xam-xam wala ñu bëri ñu am man-man ñoo xam ne dañu toog seen côté defuñu dara. occasion yi mel nii dafay tax ñu gissé waxtaan xol lan lañu mëna def ensemble. mbir ce louis dafa bok ci fuñu jaar c'est normal que lu mel nii am ñu taxawuko motax moo tax la euh, bu ngeen xamone profil yi fa génn yëpp. Euh, ñu bëri yi ngay gis tay ñu ngi yëngatu ci walu politique wala ay chef d'entreprise As Diouf waaw ah, Diouf mu ngi gis ngeen ko fi Abdourahmane Diouf ñun as lañ koy wowe ndax bi ñu nekk Sanaar noonu la woon amna fi kenn ku ma seen sank c'est un ancien maire Wali Fall ak ñeneen nak ñeneen donc ay doomu réew mi lañ ñi nga xamne tamit ils ont fait leur chemin ci espace public bu Sénégal. Hey! ki la bëgg nga bëgg ko wax ko ko looy xaar soo ko ko waxul du ko xam wax ko ko looy xaar ey ki la bëgg nga bëgg ko wax ko ko ey ki la bëgg nga bëgg ko wax ko ko looy xaar